fu mu amee fu mu tëdd rek daanaka jafe-jafe yu bari. Mhm. Euh, dana dana dana wàññeeku. Mhm. te pour man suñu jugee fii nii le plaidoyer que je vais faire envers euh, le gouvernement sénégalais c'est la location. ah. le plus grand mal du Sénégal bëgg de. le plus grand mal du Sénégal c'est la location gis nga dund gi ñuy wax nii sax. Mhm. garaawul mais am foo tëdd parce que xam nga nit euh, Cheikh Bara man mën naa toog journée du ma am lu ma dugal sama biir mais kenn du ko xam. parce que xam lu tax maa ngi. tëdd sama néeg kenn xamuluma dara. Mm-hmm. Euh, euh, su ma lekkee biscuit kenn xamul su ma lekkee caga rek soo kenn xamul. même su ma su ma lekkee pain beurre kenn xamul. loolu la loolu fa am solo mais même euh, xam nga loolu tamit buñ euh, lii buñu ko buñ ko buñ ko ci boolool ñi seetaan danañu mere parce que ñoom ñëpp <laughs> seen connexion lañu utiliser pour mën ñu seetaan euh, voilà mais mais mais mais RTS moom moo ko dugal que ni les trois opérateurs ont répondu lu mu tuddati à l'appel de l'État pour baisse ci tarif yi nga xam ni kon ne xanaa démb lañ ko def ndax man barki démb la sama connexion RTS digital moom moo moo ñu ko moom moo ñu ko may ah. kon xam naa ni du yàgg tuuti tamit danañu annoncé foofu bees yi nga xam ne moom moo fi am ñoom nañ ciy laxas jaañ parce que am na opérateur bi nga parce que connexion léegi mënatu ñàkk ci opérateur bi ñuy lekk mhm. nga xam ne tur lañ koy lekk boobu bi ministre bi waxee ñoom ci la génne ne am am nañ ay forfait yu bees yoo xam ne dañ ko génne waaye dañ ko applicable sur la 5G man ne c'est quoi mhm. euh, bi ñu lay ziar ci loo nekk delloo yaa ngi am noo tudd ak foo ñuy woowee moor Faye laa tudd leen wooyu Pikine. Mor Faye depuis Pikine siyaar nañ la di la wax naka nga def ak sa tabaski baal ñu àq déwénati. waaw ah, ñu ngi leen di bu baax. jërëjëf Mor baal nañu la. dañu yàlla boole jéggal. yaa ngi en direct ci Sunugal 24 ñu bàyyi la rek nga ñëw euh, ci allo Sunugal ak ci point yenn yi nga xam ne jot nañ ko développé. waaw man de kii bi ñu wàññi. Hmm, allez waaw wàññi dund gi di ko rafetlu bu baax. Hmm, hmm. di wax ne rek euh, état bi moom def na ci lu mu man wax dëgg yàlla. Mhm. di ñaan rek wàññi gi yàlla na gën a yokk. amiin amiin amiin soxla nañ ko. waaw di wax rek ne état bi nag suñ bëggee dund gi gën a wàññeeku nañ dooleel mbay mi. pourtant mhm. ñi ngi ci de. tey waaw ñu ngi ci ñu ngi ci maa ngi gis euh, ministre agriculture bi li mu ciy def. Mhm. di ko wax rek ne ko niñ niñ niñ dooleelee mbayum gerte nañ ko dooleelee lépp boo lépp loom dañ koy bay ñu dooleel ko. lu mel ni dugub ak mboq ak ñebbe. Mhm. ak bësi lépp lu ñuy bàyyi ci àll bi état bi dafa da war a jox doole. Mhm. xam nga buñ jëlee gerte gi rek def ko benn cër bi gerte baax na trop mais mboq ak dugub ak bësi. Mhm. yooyu yëpp ay ay ay xeetu ay xeetu mbay la yoo xamante ni état bi. da ko war a gën a jox doole ni ñu amee ay opérateurs yoo xam ne ñooy bay gerte noonu la ñu war a amee ay opérateurs yoo xam ne ñii mboq la ñuy bay mm-hmm. ñii di bay gerte ñii di bay bësi ñii di mm-hmm. bay ñebbe maanaam secteur mbay mu nekk rek état bi dafa war a fexe ba ba ci bisaab bi sax loolu am doole bu baax ci dëkk bi parce que gis nga dugub buñ ko doolelee ba mu ba mu bari ci dëkk bii mm-hmm. dugub li ci nit mën a mën a mën a mën a mën a mën a jëf jëfandikoo bari na trop ak mboq ak bësi seen mm-hmm. mm-hmm. ñebeeg lépp mbay yëpp daal nañ nañ gën a nañ gën a dooleel mbay yëpp rek. Mm-hmm. merci. ndax tey jii niñ def gerte gi suñ defoon noonu dugub ji ak ak ak ak euh, ak bësi bi. ak ñebe ji. ak ñi ak ñebe ji. ak yeneen xeetu mbay yi ñuy bay. kon dund gi dina gën a wàññeeku ci nit ñi ndax nit ñi am na ñoo xam ne bu ñu xëyoon suba di mën a am fonde bu baax di ko ndékkee moo leen gënal mburu mi ñuy ndékkee foofu sax <laughs> dëggil de <laughs> am na ñoo xamante ni bu ñu mënoon a am chaque jour cere cere ju baax di ci def <laughs> àngal ndox ba mu tàng nga siim ko ci lekk ba suur mm. moo gën fuuf yenn ceeb bi nga xam dañ ko jël di ko reeree ndax loolu feebar dong la ñuy yokk kon bépp mbay mu ñuy mbay ci dëkk bii état bi nag ci taxaw tembe wut ay opérateurs yoo xam ne dugub dong la ñuy bay mhm. wut ñoo xam ne bësi dong la ñuy bay wut ñoo xam ne ñebbe dong la ñuy bay dag dag dagguma la sëñ bi gis nga gis nga soo demee dund gi gën a yomb sëñ bi yaa ngi may dégg sëñ moor fay waa maa ngi lay dégg soo demee soo demee dëkk bu ca mel ni ñaaxaar foofu dañoo am ah. benn AIC boo xam ne dafa mujjee transformé wu en GIE. bokkoon nañ ci ñi nga xamante ni ñoo ëppoon li ñu daan béy dugub ci Sénégal. ba ay jamono sax président Macky Sall demoon na fa ngir jaajëfal leen ci liggéey boobu nga xam ne ñoo ko daan def donc ñoo ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci côté Sine Saloum di béy dugub. je pense que sénégalais yu bari su ñu jëlee ci ñoom exemple rek nga xamante ne ce sont les AIC wala les regroupements su ñu defee ni ñoom rek je pense que li ngay nii ko def. Hmm. ñoom rek suñ ko defee nguur gi si leen dooleel euh, ñuy def maanaam agropole dañuy xool par secteur ak ñii ñi fu ñu dëkkee lan moo fa gën a mën a baax lan lan la seen suuf gën a nangu pour ñu mën ko faa bay nguur gi dooleel leen je pense que euh, ñu mel ni waa ñaaxaar su état bi su leen dooleelee li ngay wax nii sax euh, daanaka mën nañ caa baña a bañ a bañ daan egg nit ñi ñooy am volonté rek état bi ñëw appuyer leen. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. dëgg la kay nit ñi ñooy am ñooy ñëw jàppale leen. mais xam nga tey jii état bu ne woon damay ubbi campagne bay dugub dugub bi mm-hmm. dama ci ubbi campagne ak ak comme li ma li ma leen bay yooyee bu ko waxoon nit ñi dinañ am danañ ñëw mm-hmm. wuy si pour loolu ñu mën a enco gën ko encourage pour man ko bay mooy agropole li ma la wax mm-hmm. parce que boo xoolee du gis ceeb bi ñuy importer bu ñu bëggoon importateur bu yomb yàlla xam ne dugub dugub bu ñu ko dooleeloon ak bësi ak ñebe jeeg xeet yooyu kon dugub ceeb kon ni ñu war a concentré wu ëllëg ci dañuy bay ceeb sax yii nii yëpp man na man man na parce que ceeb dafa nekk loo xam ne Sénégalais bu ñu amoon leneen dañ koy da dañuy jàpp loolu wàññi ceeb bi ñuy lekk ndax ceeb ku ne xam na ni da yokk feebar. ah consommation bu bari ci ceeb moom xam nañ ne. waaw li ñuy consommé ceeb dafa bari. Mhm. Mhm. waaw vraiment côté prison yi nag li ma ciy wax mooy. Mhm. ñu ngi rafet ñu ngi ñaawlu bu baax a baax li nga xamante ni am na fa. mais prison yi ni ñu war a auditer alalu réew mi noonu la war a auditer prison yi. nu audité ko ñu xool ñi nga xamante ni tëdd nañ ay peine yi yàgg bracelet yi Macky takkaloon waa Pastef ñu jël ko takkal leen ko bu ko defee ñooñu mën a àggal seen peine ci biti. Mm-hmm. bracelet électronique yi. Mm-hmm. parce que bracelet yooyu noonu dañ ko fi indi woon pour ñu ne dañuy dañ koy takkal gars yi. pour wàññeeku nañ euh, dem ñu jënd cee jënd yu bëree mm-hmm. am na loo xam ne bu ko nit defee da koy takkal bracelet alamaan ko mu fay xaalis ñu jël xaalis bu ko ci keesu parce tey bëri na parce que yaa ngi dégg ñooñu ñu nga gis ñoo xam ne dañ leen a gracié ñoom duggaat nañ ña nga waat kaso. Mhm. parce nit ki bu sàccee ginaar nga boole ko rey ko tu nit kooku da nga koy gën a yokk affaire banditisme. Mhm. Mhm. moo tax nañ fexe ba nit ki am na loo xam bu ko defee ñu koy fay ñu ñu takkal ko bracelet alamaan ko xaalis mu fay ko njugal ko ci keesu nguur gi. te it ñuy xool ñi nga xamante ni âge âge bi ñu am doo ko jëflante ak yoon xam nga ñëpp ko xam dund na maam cinquante ans xëy benn erreur bu ndaw. kooku yëmut ak xale bu ndaw bi nga xam ne daa judd rek commencé di def affaire banditisme. <laughs> merci beaucoup. xale yi nga xam ne dañuy def affaire banditisme ñooñu état bi da waru leen may dara da leen a war a yar bañ yaru. <laughs> bu dee mag moo xam ne nag dafa dund ba am 60 ans wala 50 ans mu koy jëflanteeg benn waay am mu def benn erreur bu ndaw nga jàpp ko yóbbu ko ci kaso bi fàtte ko fa loolu. jërëjëf wax dëgg yàlla du la lu bari. merci beaucoup merci. Euh, merci beaucoup euh, merci. Euh, Faye moom moo am solo. sinon <laughs> <laughs> bëgguñu ko fay tamit. non <laughs> man man daa am commentaire laa xam ne ma ko cee liir mais sénégalais d'une part mais wàññiti dund gi dafa soxal sénégalais yu bari. parce que ñun suñu alimentation ñu ci bari mooy li ñu sonal mooy ñun amuñu alimentation bu diversifiée. Mm-hmm. loolu ñu sonal maanaam du matin on consomme ceeb. comme le disent nos amis nos amis euh, de la sous-région le ceeb là. nous on consomme en fait li ñu façon bi ñu koy mais il faut le dire non en fait ñun li ñu koy consommer moo bari. Mm-hmm. parce que su nekkoon ñun amoon nañ alimentation bu diversifiée. Mm-hmm. nga xamante ne tey euh, dañuy lekk ceeb suba ñu lekk euh, exemple mboq mu ñu mu ñu mu ñu mu ñu mu ñu defar. Mm-hmm. wala ñu lekk ñebbe wala genre ñu lekk foño wala wala ñu lekk benn xeet xeet xeet xeet xeet xeet lekk am na ku ni cere bu su ne xoolal xaaral ma dugalaa rek ci sujet bi comme saa mu sa mbaxloo kenn ku ne boo dikkee <laughs> parce que bu temps bi ma mi ngi dem euh, du ñu xaar muy la visite euh, du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye foofu mhm. lee ci France mais dañuy ñëw ci forme bi d'abord laata ñu ñëw ci ci ci fond bi parce que déjà moom le président avec euh, tenue bi nga xam ni tey jii ñu ci bare bari ñu ngi koy wax mais tamit la première dame bi nga xam ni muy a madame Marie Khone Faye bi nga xam ni vraiment moom itam def na sensation bu baax a baax ci création locale yi nga xam ni ngi koy am fii parce que euh, jëf na del na def na benn saagam bu baax sac nee na yaaya bi nga xam ni moom la yor ak ak une robe bu euh, al Guèye bi nga xam ni al Guèye Dakar et une montre matériel bi nga xam ne ñoom ñëpp fii lañ ah, fii lañ leen di jaayee seetlu ah fii lañ leen di jaayee mu mu nekk loo xam ne vraiment ay ambassadeur lañ euh, <laughs> eh, valoriser a li nga xam ni moom mooy l'industrie créative du pays bi nga xam ne tey jàpp naa que lool bokk na ci dooleel ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu ay doom mm-hmm. te góorgóorlu di di di di di di di di créer mhm. loo xamante ni si ni tey jii bu ñu gisee le président euh, ak la première dame di ko sol te yaakaar naa que ni euh, publicité gënta màgg noonu ci nit ñi nag bañu amati benn complexe ñëw